Cheikh Issa Diène Cheikh Issa jenn mu ngi feeñ jamono nag ci atum 1865 ci dëkk bi nag di Cali Tagaar ci suuf sii nag di Kajoor muy doomu soxna Aram Ndiaye Diop ak sëriñ moor Baraan jenn moom Cheikh Issa jenn nag bi mu feeñee jamono waa waajuram nag sëriñ moor Biraan Diène mi ngi ko fayee nag yónun tub suñ borom bi di Seydina Insa am na nag ñu mu bokkal nag sëriñ moor Biraan jenn ak soxna Aram Ndiaye Diop mii ñu mën cee ràññee nag sëriñ Assane Diène ibnu soxna Aram Ndiaye Diop ibnu sëriñ soxna Xujja Diène jenn bintu soxna aram njaay joppa bintu sëriñ moor biraan jenn ñaar nag la bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen ngir xamale leen ak njaboot googu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan doomu ndeyam ji nag di sëriñ asan jenn moom meññi woon nag ku ñuy wax sëriñ abdu xaadir jenn sëriñ abdu xaadir jenn mi bi sëriñ tubaa seexul xaddim soxla soxna araam njaay joom mii nag ci cëyeen jolofa moom la seex isaa yónni nag mu yóbbu maamam sëriñ abdu xaadir jenn mi itim nag mooy waajuru sëriñ ibrahima jenn nag soxna xujja jenn bi mu matee dem kër sëriñ moor faatma faal nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ moor faatma faal nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna xadi faal sëriñ mbay faal ak soxna daba faal njaboot gi ñu leen tuddal nag njaboot gi bokk ak seex isaa jenn nag ñoo leen meññi laata ñuy xuus nag ci mbirum seex isaa jenn ñu wax leen nag ñii ko meññi nag ñoom ñooy ñan waajuróom wu jigéen wii nag di soxna aram njaay jóopa sëriñ moor biraan jenn mi nag lañ ko jébbaloon ci 1909 jàpp 1910 nag la génn àdduna dëkk bii nag di jolof sëriñ tuuba seexul xaddim nag moo ko laajoon nag seex isaa jenn ki la seex isaa nag yabale taalibeem bu ñuy wax sëriñ abdu xaadir jenn boole kook nag aw nag wax ko nag na fab soxna aram njaay jóob mi yit ko nag ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim nag ci cëyéen bi mu eggee nag ba nuyantee ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ay fan nag lañ ci teg soxna nag génn àdduna sëriñ abdu xaadir jenn moom daana wax ne nag soxna mariama njaay jóob mi ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim nag moo ko jullee ci ab teewaayam lenn doomi kaang fóori la ëttub alxuraan itim nag fa la feeñ a jamono bi mu dëkkook soxna aram njaay jóob mii laataa seex isaa nag di feeñ jamono la fa bàyyi nag soxna arab njaay jóob mii nag ca kër ga dem nag wéyal nag am njàngam ci dëkk bu ñuy wax nag suriwul dara nag ngenni rat googu suuf soosu nag di taagaar ku ñuy wax nag sëriñ ahmadou raasin ñaan sëriñ moor biraan jenn mi nag bi mu ñëwee ci sëriñ ahmadou raasin ñaan nag ba jàng fa nag ba noppi leer na nag ci ay téere xam-xam doon na sàkku itam nag wérd ci tariixa bii nag di tiijaaniya booba moom nag xaadar leer la sëriñ ahmadou racine ñaan mi nag da koo tanxamlu lu mat nag ñaari yoon nag jàpp ñett bi mu demee nag ba di ko ñaanal nag ngir mu delsiwaat nag ci dëkk boobu nag di njenneeraat la ko sëriñ ahmadou racine ñaan mi nag di ko xamal ne moor biraan jenn li tax nag joxuma la nag wér du tiijaan sa soxna sële nga bàyyi nag ca dëkk ba saa bu wanneew lor nag doom jam am nag góor nag lay doon su muccee itim na nga ko tudde nag yonent yàlla insa am na nakuy woote nag ci penko bi borom jamono itim nag lay doon sa doom ji itim ñu war a ànd ak moom liggéey nag ci la war a bokk itam nag joxuma la wérd wi daa di nag téere bu ñuy wax nag ab amaanatu jébbal ko nag sëriñ Mor Birane Diène di ko xamal ne nag su demee ba doomam nag feeñ jamono mu jox ko ko nag ngir mu nekk nag ak kóllëre nag digganteem ak moom jort na ne daal loolu nag du ko fi fekk sëriñ Mor Birane nag bàyyi ko nag ci dëkk boobu nag di tun del siwaat nag taagaar bàyyi xel nag li ko sëriñ Ahmadou Racine ñaan mii nag wax bi soxna Aram Ndiaye Diop nag amee gan muy góor mu tudde ko nag yonent yàlla Insa Cheikh Issa Diène nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram nag moo alxuraanul karim nag di sëriñ moor biraan jenn ci loxoy waajuram nag la jànge alxuraanul karim nag ba mokkal ko ba tàmbali faa jàng nag xam-xam ginnaaw bi itam nag jaar na nag ci tundu kajoor wow ci kilifa yu takkoo takkoo takku nag ngir nag di fa jàng nag xam-xam ba ni mu eggee nag ci jàmbaari sëriñ tubaa seexul xadim ji di sëriñ masamba jóob saama bi mu jàngee nag ba delsiwaat nag ci ëttub waajuram la tëdd nag génn guddi am nag lu ko feeñu muy ak leer nag ku déparé nag ci bi mu tëdd nag jëm nag ci penku bi mu jóg gis ci penk bi nag la bëgg a seeti di sëriñ boobu may dégg nag ci Touba waajuróom itam nag génn na nag ñaanal ko ndax la ko sëriñ Ahmadou Racine ñaan mii nag waxoon Cheikh Issa Dieng itam nag bàyyi koo nag kër waajuram demaat nag ci dëkk bu ñuy wax nag cey Jóob seeti woon fa nag xaritam bu mu doon àndal bu mu doon wax nag Sóori Jóob ginnaaw bu mu nag ci guddi gi nag ba yee sëriñ Sóori Jóob mii la koy xamal ne daal damay jébbulu ji nag Touba sëriñ Sóori Jóob mii itam nag doon na xamal Cheikh Issa man daal damay jébbulu ci yow nag ba pare doog a sëriñ Sóori Jóob nag lañ ñëw nag Touba wax nañ ne daal bi ñuy dugg Touba booba nag asamaan nag set na am na ak déem nag gu nekkoon nag ci mbal déem googu nag fa la sëriñ Sóori Jóob mii nag fàkk ñu man faa dallu ginnaaw buñ fa dalloo ab diir nag la ñu jàll si nag ci dëkk bu sell bii nag di bi biñ ñëwee nag ba yëglu la sëriñ Touba seexul xaddim nag sàkku itam nag ci ñoom ñaar nag ñu ñëw bi ñu egsee nag ba seex i isaa jenn nag nu yókku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim ba noppi seexul xaddim nag laaj ko nag waajur wu góor mu di ko wax nag sëriñ Mor Birane Jenn sa waajur wu jigéen itam nag nu mu tudd mu di ko wax nag soxna Aram Njaay Jóob Seexul Xadiim itam nag laajoon na ko lu nekkooni tànkam mu di ko xamal ne nag dama bëggoon a jaayanteeg yow Seexul Xadiim nangul ko nag ak njébbalam nag Seex Isaa Jenn nag jébbalu sëriñ Sóori Jóob mii mu àndaloon itam nag jébbaluwaat nag ci Seexul Xadiim Seexul Xadiim nag daat koy boolewaat ak Seex Isaa Jenn bi mu jébbaloo ba noppi nag moom Seex Isaa Jenn sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim toolu bref nag lañ wax ne nag nekkoon na nag ci kër gi toolu bref boobu nag mooy xaal seexul xaddiim itam nag waxoon na Cheikh Issa Diène nag mu jël gob boobu bay nag tool bi bi Cheikh Issa Diène nag jëlee gob bi bay bay nag gob bi daal niñ ko weeye woon nag gënulul Cheikh Issa Diène mu dindi ko nag weewaat ko nag ba ni mu baaxee nag ci moom Serigne Touba Seexul Xaddiim mi ngi taxaw itam nag di ko xool Cheikh Issa itam nag na bisimila tàmbalee nag bay bi mu bayee nag ab diggante nag bu xaw a yàgg la Seexul Xaddiim nag génn woolu nag Serigne Omar Gueye Anta Nguna na dem wax ndaw lee nag mu ñëw nag wuy si ko bi Serigne Omar Gueye jenn nag di ko xamal ne kaay wuyu nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi seex isaa jenn nag ñëwaatee nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim nag na seex ba seex isaa jenn nag di jébbalu muy moom seex isaa nu mu tudd turu waajuróom wu góor ak turu waajuróom wu jigéen ak lan moo nekk nag ay tànkam seex isaa daal nettaliwaat ko nag lépp lu mu ko nettali woon seexul xaddim nag daal bind di ko xamal ne daal akasa lépp nag mat na ginnaaw bi itam nag la sëriñ tubaa seexul xaddim nag xamal na seex isaa ngaa delluwaat nag ci tundu taagaar ci dëkk boobu nag di njenne soo demee nag nga wéel nag liggéey bi bi Cheikh Issa nag ñëwaatee nag ci dëkk boobu nag di njenne rat bi mu egsee nag waa tund woowu nag yëg ne nag Cheikh Issa nag demoon na nag seeti nag ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim mu tàmbali faa am nag ay jafe-jafe am na itam nag ñu jébbalu woon nag ci moom ñeent nag ñu njëkk a nag ci moom ñu mën cee ràññee nag sëriñ Sori Diop mii nag mu àndaloon dem Touba Serigne Ngagne Tandine Serigne Ibrahima Mbeng ak Serigne Mor Touré nekkinam nag ci tund woowu nag neexul woon moom Cheikh Issa jenn daa nañ wax itam nag Cheikh Issa benn ràbb nag ak ñaari naar kum taxa nag damm sab gopp ci réccu rek nag ngay mujj kàddu yooyu daal wéy na nag di ko dégg nag wéy itam nag des nag ci tundu taagaar woow ba ni Seexul Xaddim nag demee ci géej gi bi Seexul Xaddim nag di dem ci géej gi mi ngi foofu nag ci njenneerat ci njenneerat googu nag la wéy nekk nag ba ni Seexul Xaddim nag ñibbisee nag ci géej gi foofu itam nag la jóge ci kàddu yooyu nag ñu ko doon wax benn ràbb ak ñaari naar nag kum taxa damm nag sab gopp ci réccu nag ngay mujj mu mujj nag jóge foofu dem sanc nag fu ñuy wax daaru salaam jenn ci suuf si nag di ndànd daaru salaam jenn googa nag am na fa juróom fukki at ak benn doog a delsiwaat nag njenne rat ci bi mu delsiwaatee njenne rat nag màggal googu ñu koy defal ci njenne rat nag loolu moo waral nag màggal gi mu juróom fukki at ak benn yooyu mu fa gëj nag delsiwaat fa naar yooyu nag ñu doon xase nag Cheikh Issa jenn Cheikh Issa nag sàmm na nag kóllëre googu ba bi sëriñ baara jenn nag amee doom muy sëriñ naar jenn mu fayee ko nag naar boobu nag ñu ko doon xasee muy sëriñ ngañ tàndine moo waral nag naar jenn yi nag bari nag ci ëttub Cheikh Issa jenn jenn rat googu nag la nekkoon nag ba ni sëriñ Touba Seexul Xaddim nag ñibbisee nag ci géej gi njenn rat googu itam nag fa la waajuróom wu nag tëdd di sëriñ Moor Biraan Jenn ginnaaw bu mu bàyyi ko njenn rat nag la sanc nag bërëb nag bi mu njëkk a nekk mu tudde ko Daaru Salaam Jenn Daaru Salaam Jenn nag mi ci suufus ndànd Daaru Salaam Jenn gii nag am na fa nag juróom fukki at nag ak benn lay doog delluwaat nag ci njenn rat gi nekkaat fa ginnaaw bu mu jógewaatee njenn rat nag moom Cheikh Issa Jenn la taxawal ay daara nag ci suufus Kajoor gi ñu mën cee ràññee nag ci turu daara yooyu daara juñ doon wax nag màkka taare daara juñ lañ doon wax nag mbay ja ña ñaari daara yii nag gént nag mu jógee fa nag sancaat beneen dëkk nag bu ñuy wax daaru salaam xabbaan ci suufus xabbaan si foofu itam nag daara yam fa amoon ñu mën caa ràññee daara ju ñu doon wax nag bu loox daara ju ñuy wax nag naanaake ak daara ju ñuy wax nag lóri waaye ba tey itam nag daara yi itam nag dafa mujj gént mu dellu nag taxawal nag geneen daara nag ju ñuy wax nag gal ci saamuk sëriñ mëndumbe xabbaan gal gii nag ba mu fa nekkee sëriñ abdu xaadir jenn mii nga xam ne nii nag moo yóbbu woon waajuram ci bi ko sëriñ tubaa seexul xadim laajee nag ci ca jolofa daara jooju nag di gal nag fa la génnee àdduna foofu itam nag lañ ko denc mu taxawalaat nag geneen daara nag ci dëkk moo fa féetee taxawalaatoon na nag geneen daara nag ci suufus mbar si ñu koy wax nag ngenne lagan foofu itam nag daaru salaam jenn nag la ko tuddee lagan nag ab déeg la nag ñu adressé ko nag dëkk ba nag di daaru salaam jenn ñeen fukki kilomètre nag la fa goroon ñeen fukki kilomètres yooyu nag ay daara nag la ko defoon daara yooyu nag ginnaaw bu mu fi bàyyi ko ay njabootam nag def nañ ko nag ay dëkk nag féete fa ñeent fukki kilomètres yooyu mu goroon nag ci déeg boobu nag di lagan tudde ko daaru jenn daara yam fa taxawaloon nag nii la tëddee daara juñ tudde woon daaray siidi taawam sëriñ baara jenn nag moo fa féete woon tuubaa njenne sëriñ soye bu jenn nag di doomu sëriñ baara jenn nag moo fa féete daaru rahman sëriñ abdul latif jenn mii doom nag moo fa féete ak rakkam nag sëriñ abdul halim daara juñ tudde nag xay mbayaar doomam sëriñ basiiru jenn nag moo fa féete woon daaray niisa sëriñ mbàkke jenn nag di doomam nag moo fa féete woon daaru salaam njenne itim sëriñ mbàkke jenn doomam itam nag moo fa féete woon baxdaad lagan sëriñ yusufa jenn doomam nag moo fa féete woon daaray lansaar sëriñ naar jenn miy doomu sëriñ baara jenn nag moo fa féete woon daaray cele sëriñ musaaka cele nag moo fa féete woon daaru marnaan lagan sëriñ ngañ tàndine nag moo fa féete woon daara ji ñuy wax nag naar ga ak misra sëriñ moor ture nag moo fa féete woon mooy maamu nag mbay ture daaray guy meew ak daaray juudi daara yi nag la cheikh isaa jenn sañtoon daara yi itam nag fa la liggéeyale sëriñ tuuba seexul xaddiima daara yi itam nag fa la defare nag mbooloo mu takkoo takkoo takkoo takku ba seexal leen ci mu defar nag ba seexal leen nag ñu mën cee ràññee sëriñ ngañ tàndine sëriñ mor Touré sëriñ ibrahima mbeng sëriñ ali sëy sëriñ ahmadou souran sëriñ moussa ka madina sëriñ moussa ka cele sëriñ fàllu géy sëriñ alioune mbàkke sëriñ alioune mbàkke mi nag ab tubaab la bu tuuboon nag seex isaa jenn nag soppi aw turam soppi itam nag aw santam seexal ko sëriñ moor latir Diop sëriñ moor jenn daaru paam sëriñ abdourahman diagne sëriñ daouda diagne sëriñ seex géy yugo Gorée sëriñ Touba Mbay sëriñ Touba Mbay mi nag doomu sëriñ Babacar Mbay la sëriñ Babacar Mbay nag ci jàmbaar yi sëriñ Touba Seexul Xaddim defaroon nag ci la bokkoon ginnaaw bu fi sëriñ Babacar Mbay bàyyi ko la sëriñ Touba Mbay mi nag di xamal Cheikh Issa Diène ne ko li ma doon wër nag ci sëriñ Babacar Mbay tam defaloon ko Seexul Xaddim gis naa ko ci yow kon nag damay mujj rek jaayanteeg yow nag topp nag ci sa ginnaaw mbooloo mi mépp itim nag Cheikh Issa Diène itam nag defar na leen mu nekkoon itam nag ak ku am kóllëre ak mag ñim séqaloon ëttub ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim Makhtar Ndiaye Tagaar sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa sax tudde na ko doom sëriñ Alioune Touré sëriñ Alioune Touré itam nag tudde na Cheikh Issa Diène doom maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina ku wólarante woon ak Cheikh Issa Diène la doomam soxna Sooda Fall taawu Cheikh Issa Diène dëkkoo woon na ko muy sëriñ Baara Diène sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ moom itam ku wólarante woon ak Cheikh Issa Diène la sëriñ Mor Kumba Kan moom itam ku wólarante woon ak Issa Diène la maam Cheikh Anta Mbàkke naka noonu sëriñ Balla Coro Mbàkke sëriñ mboolem njabootug sëriñ tubaa seexul xaddim gi itam nag dañoo jaxasoo woon ak seex isaa jenn rawatina nag cheikh mouhamadul faadal mbàkke bi cheikh mouhamadul faadal mbàkke nag di dem ségu bindoon na lettre nag seex isaa jenn di ko xamal ne maa ngi nii nag ci ak saxaar nag romb la jëm nag ségu ci sa xarit ba nag di sama waajur maa ngi sàkku ci yow nag nga ñaanal ma su ma eggee nag bay ñibbisi moom it nag na ñibbisi cheikh mouhamadul faadal mbàkke itam nag bindaatoon na beneen lettre seex isaa jenn di ko sàkku nag ci aw yoon mu defaral ko ko nag ci dëkk nag bu mu sancoon booba digganteem ak dëkk bu ñuy wax nag na maari la cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag bëggoon cheikh isaa jenn nag xàllal ko nag yoon woowu soo delloo nag ci lettre bi mu Mamadou Fadal Mbàkke bindoon cheikh isaa jenn mi ngi koy nuyu nag ni lislaam baaxoo nag di nuyoo nangul ko itam nag ay mayam nangul ko itam nag garaat gi mu takk nag muy murit saadex di ñaan itam nag suñ boroom musal ko ci ayu doomu aadama nag ak junne ndax sant cheikh isaa wii nag di jenn bari na nag mag ñoo xam ne nii nag suñ ko masaa bind lettre danañ bàyyi xel nag ci sant wi ni mu nuroog nag tax itam ku koy ñaanal da nga ko ñaanalaale loolu nag ngir suñ borom musal ko nag ci ayu junnee Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke nag mi ngi koy xamal ne wàcc naa nag ci dëkk bu ñuy wax nag mbooba nekk nag ci penkub gringal soriwu ko nag dara fa séeni fee feeñal nag li nga xam ne nii nag nëx-nëxi jamono nag nëbbu na ko ci mbiri sëriñ bi gisuma lenn itam nag lu mën a yéwénal mbir yi lu dul liggéey bu wér nag te dëggu teg ko nag ci yéene bu rafet loolu nag ci la mbir nag di yéwénee suñ gisee bu mujj nag ca Tuubaa na ma la ko waxe woon rek noonu itam rek ni laa ko defee maa ngi yebal ci yow nag ku ñuy wax góor sàll li des ci wax ji nag te bind ma ko ci leetar bi nag dana la ko wax waaye daal maa ngi lay xamal ne tawfiix daal ci yàlla rek la bàyyi koo bëgg lu ma ne nag moo tax nag ma ñëw fii sama yitte nag ju gën a jàmp nag jamono jii mooy nag nga yabalan ma nag ay donga yu ma defaral nag aw yoon diggante na maari ak mbooba ñu teelu nag lettre bi ma cheikh mamadul faadal mbàkke bindoon cheikh isaa jenn usallimu aleyka ayuha almuridul aashiq walhabibu lwaamix cheikh isaa jenn waqaana allah wa iyaaka charra kulli insin wa jin wa uallimuka bi anni ataytu huna wa nazaltu bi mahalin yuqaalu lahu mbooba charxay giriñ man yal xayru baidan minhu naawiyan inchaa allahu taala alxidmata li wajhi li wajhillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa li ihlaali ma axfaahu zaman wa akdariha min umuuri cheikh li anna bilxidmati alsaadixati maa niyati alsaalixati tuslihu alahwaalu kullaha laa xayru kama qultu laka fi tuuba yowma liqaaina faaltu arsaltu ilayka sëriñ góor a sàll haza wa allimuka bi ityaani wa ma uridu ila alislaaha ma stataatu wa ma tawfiqi ila billah wa akbaru hawaaiji minka fi hadihi saati an taamura xawman bi an yafaalu tarixan min annamaari ila mbooba haajilan haajilan haajilan wasalaam alhaaji Mouhamadul Fadilou Mbacké Cheikh Mamadoul Fadal itam na ay lettres yi lettres nag Cheikh Issa Diène nekkoon na nag ku wëlëranteeg Cheikh Issa Diène bi Cheikh Issa Diène génnee àdduna ci atum moo yónni rakkam Cheikh Mamadoul Bachir Mbacké mu dem njenne lagan indil ko nag jàmbaari Cheikhul Xadim ji bi mu ñëwee Touba itam nag moom Cheikh Mamadoul Fadal Mbacké moo ko jullee sàkku itam nag ñu denc ko nag ci armeer yu mag yi xalifaam bii fi nekkoon nag njëkku ko yaatoo yaatu nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba muy fi ñuy wooye nag njenne kajoor googu nag la jóge woon nag jaayanteeg ku baax ki sëriñ nag ci Touba kajoor googu itam nag la delluwaatoon nag nekk fa bi seexul xadim di dem ci géej gi nag mi ngi foofu fukki fan ak benn nag ci weeru novembre nag ci atum 1902 la seexul xadim nag ñibbisi bi seexul xadim nag di ñibbisi Seex isa Jenn nag ndakaaru nag la ko fekk ndakaaru googu nag la giseek seexul xadim ndakaaru googu itam nag la ko seexul xadim nag yónnee di ko wax nag mu wool ko maam Ceerno Ibrahima Faati Cheikh Issa nag bàyyi ko Ndakaaru ñëw nag daaru Marnaan giseeg maam Thierno Ibrahima Faati di ko xamal na daal suñu yaakaar ja nag gis naa ko nee na nag nga fekk ko nag ndar booy ñëw nag nga ànd ak lenn nag ci njaboot gi bi Seexul Xadim nag ñibbisee nag def fi ab diir la fi bàyyi ko nag dem gànnaar gànnaar googu itam nag Cheikh Issa Diène nag daana fa yónnee ay addiye nag ci ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ci yéen Jolof itam nag naka noonu ba ni Seexul Xadim nag ñëwee njaareem bi Seexul Xadim ñëwee njaareem itam nag Cheikh Issa Diène ñëwoon na kër kër ga itam nag ba nëgëni lenn itam nag ci ay sëtam nag ña nga fa ci nag bi Seexul Xaddim nag di taxawal nag jumaay ji bu ñu ñaanee autorisation bi nag ba noppi ba xam itam nag ci ban bërëb nag lañ koy def ba Seexul Xaddim itam nag léemu bërëb ba bi mu geesoo nag gis Seex Isaa Jenn dana ko nag liggéey baa ngi noonu nag sa loxo moo taxoon itam nag Seex Isaa Jenn itam nag nekkoon nag jëwriñu liggéey ba ba ni jumaa ji nag noppee njaareem googu itam nag mu ngi Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim séq nañ fa nag lu takkoo takkoo takku Seexul Xaddim itam nag yónni na ko itam nag fu bare bare bari Cheikh Issa itam nag dem fa njaareem googu nag bi fi Serigne Touba Seexul Xadim nekkee la fa taxawal nag jumaa ginnaaw bu ñu xoolee nag bërëb ñu war a def jumaa ji nag ba noppi ba ñaan itam nag li ñu tuddee autorisation bi Seexul Xadim nag moo bërëb ba nag ba noppi la wax Cheikh Issa Diène nag mbir mi nag mu ngi noonu Cheikh Issa Diène itam nag nekk itam nag jëwriñu liggéey ba ba nu liggéey bi nag noppee lépp loo xam ne daal kilifteefu jumaay njaareem la ci loxoy Cheikh Issa Diène nag ni itam nag entretien la ci loxoy njabootu Cheikh Issa Diène itam nag la nekk sëriñ Baara Diène nag yeesal na ko benn yoon ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke sëriñ Abdou Latif Diène yeesal na jumaay njaareem gi nag ñaari yoon benn bi nag ci kilifteefu sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke la benn bi itam nag ci kilifteefu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke la suuf it nag njaboot gi am nañ ko nag ci cëyeen jolofa sëriñ Cheikh Mbacke Madina moo leen jox nag suuf su yaatoo yaatoo yaatu ngir ñu a fàttaliku nag seen maam jooju nag tëdd cëyeen di Diop moom Cheikh Issa Diène nag mu nekk nag ku jaxasoog Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bi fi ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim bàyyi ko mu Mamadou Moustapha Mbacke nag la jébbal boppam di ko xoole nag Serigne Touba Cheikhul Khadim bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag di defar nag jumaa ji joxoon na aw sas nag Cheikh Issa jenn ci carrière bi nga xam ne nag moom lañ doon ngas nag ngir jumaa ji Cheikh Issa Diène ni itam nag ak njabootam itam nag la fa yabaloon ñu mën cee ràññe nag taawam Serigne Bara Diène Cheikh Mamadou Bachir Diène di doomam Serigne di doomam ak mbooloo mbooloo mu takkoo takkoo takku nag ci taalibe yi ginnaaw bu ñu demee ca carrière ba nag ba liggéey fa nag liggéey bu am solo Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam nag bëggoon na ca jaarale woon nag lettre sant ci jëwriñam nag Cheikh Massamba Mbacke ngir mu bind lettre nag Cheikh Issa Diène di ko wax ne daal mbooloo muy mu ko joxoon nag ngir ñu ñëw gas carrière nag ngir jumaa ji lañ fa liggéey nag kawe na nag njortam soo delloo nag ci lettre bi Cheikh Massamba Mbacke bindoon nag ci turu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag di ci sant nag Cheikh Issa Diène mi koy nuyoo nag ni lislaam baaxoo nag di nuyoo muy asalaamu aleykum nangu itam nag may yi nga xam ne ni Cheikh Issa Diène itam nag am na ko muy murit saa dex gi mu nekk ñaanal ko itam nag suñ borom nag fegal ko lépp nag luy ay nag wu jóge ci nit nag di dem nag ci nit ñaanal ko itam nag suñ borom may ko nag fegu santam wii nag di jenn dañ mën koo méngaleeg junne suñ borom itam nag musal ko nag ci junne wala musal ko nag ci ay junne di ko xamal ne nag lettre bi maa ngi ko bind nag ci ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké mi ma def jëwriñ nag ci carrière bii maa ngi lay xamal nag sa doom ju baax ji cheikh Mouhamadou Lamine Baara Jenn sëriñ Basiiru Jenn di rakkam ak sëriñ Mbàkke Jenn itam nag di rakkam ak sa taalibe bii nag di sëriñ Mamar Sorong ànd nañ feek nag mbooloo mu bare bare bare bari ñëw nag ci carrière bi ci liggéeyub sëriñ Touba bii am nañ fi nag ñeenti fan jëf nañ fi nag jëfi ñeenti weer loolu nag la koy firndeel mooy ci carrière bii gas nañ fi nag juróom fukki jal nag ak ñaar liggéey bi nag li muy rëy rëy liggéey yéen wi nag moo ko gën a rëy soxla wuñ fi nag lekku kenn soxla wuñ nag naanu kenn lépp lu ñu war jëfandikoo nag indaale nañ ñaawuñu ñu fii tim nag yàquñu fii boole nañ nag liggéey ak nag jàpp nag seen njàmbur loolu nag ñu ngi la koy seedeel nag yow nag mi leen fi yabaloon man sëriñ Masamba Mbàkke ibnu Muhammad maa ko bind nag ci ndigalul Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ñu teewlu nag lettre bi Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke bindoon jaarale ko nag ci Cheikh Masamba Mbàkke ngir mu sant nag Cheikh Issa Diène assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu fi ila cheikh almuridi saadiq almardi anhu lan yafuux wa yarunu almuxaddim Issa Diène xasahu laahu ma kalla anhu jamihu al insi wal jinn mima yaxbituhu له فيه غيره على جميع أمثاله أكبر السلام والتحية والإكرام من كاتب هذه العروف مع الإعلان بأن ابنك مبارك المامون المردي عنه وممر سرن وصغيره البشير وإبراهيم وجميع المريدين أتوا على أحسن هيئة وأكمل صفة في شأن الخدمة في محل الأحجار ومكثوا هنالك أربعة أيام وفعلوا على تلك المدة على مقدار أربعة أشهر وفعلوا هنا ما لم يفعله أحد قبلهم ولا يفعله أحد بعدهم وهاسل الكلام axraju min al axjaari isna isnayn wa xamsiina juzaafan kullu juzafin laa yaxmiluhu ila kasiru min annaasi maa annahum lam yafsiduu ashyaa ala ahadin wala ala cheyin ma wa maa yaxtaaju ila cheyin taajabu naasu fi xidmatihim wa fi siyaanatihim wa fi jamihi umuurihim xusuusan wa umuman fa juziitum xayran wa kufiitum dayran wa buurika fiikum wa basharukum bi kulli xayrin wa baqiyatul kalaami ala lisaani alxaamili wasalaamu cheikh Massamba ibnu Mouhamed xabaahu llahu maa yuhma cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke moomu nag ba tey ku jaxasoo woon ak Cheikh Issa jenn la bi fi sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo bàyyi ko ci atum 1943 soxna muslimatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadima ginnaaw bu mu taxawoo ginnaawu sëriñ Ndaam nag ba noppi Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke itam nag moo ko jëlaat jébbal ko nag Cheikh Issa Diène ngir nag mu dëkkoo ko moom seex Issa Diène nag yoroon na ay soxna ci biir soxna yi seex Issa jenn dëkkoo woon ñu man cee ràññee nag soxna Mariama Diop mook soxna Mariama Diop nag am nañ benn bant muy sëriñ Baara Diène yoraatoon na Faati Faal mook soxna Faati Faal itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Faatu Jenn ak sëriñ Basiiru Jenn yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna Seynabu Luum mook soxna Seynabu Luum itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mbàkke Jenn ak soxna May Jenn yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna Faati Bintu Saar mook soxna Faati Bintu Saar nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Mbeen Jenn soxna Bintu Jenn sëriñ Abdou Latif Jenn sëriñ Abdou Halim Jenn soxna Mbàkke Jenn di faye woon nag soxna Faati Ja Mbàkke sëriñ Abdou Samad Jenn ak kim faye woon nag cheikh ibrahima fall làmp baabul muridina muy cheikh ibrahima jenn yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna awa mbay mook soxna awa mbay nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ yuusu jenn soxna ummi jenn ak sëriñ baddo jenn di kim faye nag sëriñ Alioune Touré yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna basa kan moom sëriñ moor warxa kan mook soxna basa kan nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ daam jenn ak soxna ummi jenn di ñaareelu soxna ummeem yoraatoon na soxna suñu wax soxna muslimatu mbàkke bintu sëriñ tuba seexul xadima benn bant nag la ci am muy sëriñ Abdou Salaam Jenn yoraatoon na soxna suñu wax nag soxna Xadi Jonn mook soxna Xadi Jonn itam nag am nañ ak njaboota ñu cee ràññe soxna Sooda Jenn soxna Awa Jenn soxna Busa Jenn soxna Aminata Jóob Jenn soxna Assugay Jenn soxna Fatija Jenn ak soxna Mati Toob Jenn yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna Assu Jeng moo soxna Assu Jeng itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag soxna May Jenn soxna Faati Faal Jenn ak soxna Jaaratullaahi Jenn yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna Fatim Jóob mook soxna faatim Jóob itam nag benn bant lañ am muy soxna soxna Seynabou Diène yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna Aminata Diop mook soxna Aminata Diop nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Maguette Jolof Diène soxna Faati Ndand Diène yoraatoon na soxna wax nag soxna Aminata Lo mook soxna Aminata Lo itam nag benn bant lañ am muy soxna Sooda Diène yoraatoon na soxna suñu wax nag soxna Ummi Gay mook soxna Ummi Gay itam nag benn bant lañ am muy soxna Ngéye Diène yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna Faal Wadd mook soxna Faal Wadd itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Ami Paafa Diène ak soxna Busa Diène yoraatoon nag soxna suñuy wax soxna Joor Ja mook soxna Joor Ja nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mor Latir Jóob jenn soxna Faatu Bintu Saar jenn yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Faati Ñaan mook soxna Faati Ñaan itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Basiiru jenn ak soxna Xari jenn yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna Caara Tàndine mook soxna Caara Tàndine nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag soxna Xujja jenn ak sëriñ Xaadim jenn soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yii nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot googu mu am nag ci soxna yooyu mu dëkkoo woon nag moom Seex Isaa Jenn nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna faati jenn nag bi matee dem kër sëriñ Abdou Gaye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdou Gaye nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Souley Gaye ak soxna Boussa Gaye doom ji nag di may jenn bi mu matee dem kër sëriñ Alioune Touré nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Alioune Touré nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Dame Touré ak soxna Absa Touré doom ji nag di soxna jenn bi mu matee dem kër sëriñ Abdou Samad Mbacke mu sëriñ Touba Xaadim Rasool nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdou Samad Mbacke itam nag benn bant lañ am muy aji maam Bousso Mbacke ginnaaw bu soxna mbenn jógee ci loxoy sëriñ Abdou Samad Mbacke lañ ko jébbal nag sëriñ Modou Faty Khary Mbacke moom Cheikh Massamba Mbacke mook sëriñ Modou Faty Khary Mbacke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Momi Mbacke sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Abdou Samad Mbacke ak sëriñ Modou Habib Mbacke doom ji nag di soxna Bintu Jenn bi mu matee dem kër sëriñ Modou Moustapha Fall nag bu Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Modou Moustapha Fall nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdoul Aziz Aziz Fall ak soxna Ndey Fall ginnaaw bu soxna Bintu nag jógee nag ci loxoy sëriñ Modou Moustapha Fall lañ ko jébbal nag sëriñ Assane Fall mook sëriñ Assane Fall nag benn bant lañ am muy soxna Musli Fall doom ji nag di soxna Ummi Jenn bi mu matee dem kër sëriñ Mor Latir Diop nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mor Latir Diop nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Jaara Diop sëriñ Cheikh Mbacke Diop ginnaaw bu soxna Ummi nag jógee ci sëriñ Mor Latir Diop lañ ko jébbal nag sëriñ Sidi Tandine mook sëriñ Sidi benn bant lañ am muy tàndine doom ji nag di soxna sooda jenn bi mu matee dem kër sëriñ Abdou faal baaxee nag lañ ko jébbaloon moog sëriñ Abdou Fall baaxee nag am nañ ak njaboota ñu man caa ràññee nag soxna maam Boussa Fall sëriñ Basiiru Fall ak sëriñ Cheikh Fall doom ji nag di soxna Boussa jenn bi mu matee dem kër sëriñ Alioune Mbacke bokkoon itam nag seexi Cheikh Issa jenn yi nag lañ ko jébbaloon moog sëriñ Alioune Mbacke nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Xaadim Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Moodu Mbacke soxna Mariama Mbacke ak sëriñ Abdou Salam Mbacke doom ji nag di soxna soxna ummi jenn di maneen soxna ummi jennam bi mu matee dem kër sëriñ Mamor Mbacke Sikaam nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mamor Mbacke Sikaam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdou Lahad Mbacke sëriñ Basiiru Mbacke soxna Maymunatu Mbacke sëriñ Galas Mbacke ak ñaari soxna Assu Mbacke doom ji nag di soxna Awa jenn bi mu matee dem kër sëriñ Moor jenn nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moor jenn nag benn bant lañ am muy soxna Bintu jenn doom ji nag di soxna Say jenn bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Faal Càlle nag lañ ko jébbaloon woon mook sëriñ Modou Fall Càlle nag benn bant lañu am muy soxna Ndey Fall doom ji nag di soxna màggat jenn jolafa bi mu matee dem kër sëriñ Moor Jeng nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moor Jeng nag benn bant lañu am muy sëriñ Siidi Jeng ginnaaw bu soxna màggat jolof nag jógee ci loxoy sëriñ Moor Jeng lañ ko jébbal nag sëriñ Moussa Gueye Kang bokkoon nag ci ñu yoroon daaray Cheikh isaa Jenn ji lu ëpp itam ci njabootu Cheikh Issa Jenn gi sëriñ Moussa Gueye Kang mi nag moo leen jàngal bi soxna màggat nag ñëwee ci ay loxoom njaboot gi mu am ak mooy sëriñ Abdoulatif Gueye soxna Bintu Guèye ak soxna Oumy doom ji nag di soxna Faati Ndànd bi matee dem kër sëriñ Daam Soran nag nañ ko jébbaloon mook sëriñ Daam Soran nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Cheikh Soran ak sëriñ Abdou Soran doom ji nag di soxna Sooda Jenn bi mu matee dem kër sëriñ Mbàkke Fall moom Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina nag lañ ko jébbaloon soxna Sooda nag mook sëriñ Mbàkke Fall nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Ndey Fall ak soxna Maam Busa Fall doom ji nag di soxna Ngëye Jenn bi mu matee dem kër sëriñ Elaaji Cheikh Fall Ndànd nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ sëriñ alaaji Cheikh Fall nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Modou Mbacke Fall ak sëriñ Siidi Baara Fall doom ji nag di soxna Ami Paafa Jenn bi mu matee dem kër sëriñ moor ngoone Fall nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mor Ngóone Fall nag benn bant lañ am muy sëriñ Ibrahima Fall ginnaaw bu soxna Ami Paafa nag jógee sëriñ moor ngoone Fall lañ ko jébbal nag sëriñ Baara Seck mook sëriñ Baara Seck itam nag benn bant lañ am muy sëriñ Abdou Seck doom ji nag di soxna Faati Fall Jenn bi mu matee dem kër ko bant lañ am muy sëriñ mbay kan ginnaaw bu soxna faati faal jenn nag jógee nag ci loxoy sëriñ sëyit kan lañ ko jébbal nag sëriñ moor mati wadd mook sëriñ moor mati wadd nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ cheikh wadd ak soxna na bu wadd njaboot gii ñu leen tëddal nag ñooy lenn nag ci sëti cheikh isaa jenn yi mu nekk nag ku sëriñ tuubaa seexul xaddim def ci moom nag ay may gis naa nag ci lu tukkee ci leetar nag bu ko sëriñ tuubaa seexul xaddim bindoon di ko ca wax ne am joo xam ne ni nag aw yiw nag la la ca suñ boroom nag di bindal gis bi bind ne loo xam ne nii daal ay may la te gaa yu baax yi jiitu woon nag am ko yow Cheikh Issa Diène itam nag am nga nag lu ñu toll ci ay may taxoon na nag Cheikh Issa Diène itam nag doon sàkku itam nag ci ak njabootam na bis bu génnee àdduna nañ ko dencaale nag bépp mbindum Seexul Xadim nag bu jëm si woon nag ci moom day bañ nag bu ëllëgee nag taalibe yi gis ko di naagu nag ba bañ a jaamu suñ boroom mu nekkoon itam nag ku bàyyi xel nag jamono moom Cheikh Issa Diène lépp nag luy xew-xewu jamono nag daana ko topp bi mu fiy nekk itam nag am na ay journal nag yu mu abonné woon ngir nag di topp nag ay xibaar nag ci ñoom ñu mën caa ràññee nag journal bu ñuy wax nag as safaaxa ak journal bu ñuy wax nag al amal ñaari journal yi nag réew mu ñuy wax nag liban nag la ñu nekk ak journal bu ñuy wax nag al muzawar ci réewum Égypte nag la nekk journal bu ñuy wax nag as sahada ci réew mii nag di Maroc itam nag la nekk ñeenti journal yi nag seex Issa jenn nag moo leen abonné woon ngir nag di xam nag li xew nag ci àdduna bi journal fay par weer yi ci des itam nag fukki dërëm nag la ci daa fay par weer ca jamono jooja doomam sëriñ Abdou Latif Diène nag mi ngi may xamal ne journaux yooyu nag ba nëgëni am na ci yoo xam nii nag mi ngi ci biir nag ay bagaasam mu nekkoon nag ku yéemee yéemee yéemee moom Cheikh Issa Diène am na benn bis nag doomam sëriñ Abdou Latif Diène ànd ak magam nag sëriñ Basiiru Diène booba nag doomam sëriñ Abdou Latif Diène nag mi ngi jàng alxuraan nag ci daaray Baye Moussa Gueye Kang ci dëkk bii nag di Njenne Lagan mu am bis nag magam sëriñ Basiiru Diène nag ñëw laaj nag ci wàllu alxuraanul karim mu di ko xamal daal suratul hajj nag ci laa toll mu di ko wax ne nag nañ ànd nag ci Cheikh Issa Diène ma wax ko ne daal yow nag jàmbaar nga bi ñu ñëwee nag ci Cheikh Issa Diène nag moog rakkam sëriñ Abdou Latif Diène Cheikh Issa laaj nag sëriñ Abdou Latif Diène nag fu mu toll mu di ko xamal na nag suratul hajj nag la toll bi Cheikh Issa nag xoolee àlluwa ji nag diir bu yàgg lay wax nag sëriñ Abdou Latif Diène nag di ko wax ne aaye bii nga toll de mi may fàttali nag sama jébbulu nag ci sëriñ Touba Cheikhul Xadima guddi bii nag laa doon jàng nag ci néeg bi ma fanaanoon gëmment nag dikkal ma ma teg nag alxuraan bi ma yoroon nag ci sama kaw nag nelaw yonent bi itam nag feeñu ma mi ngi xamal nag sëriñ Basiiru Jenn nag ak rakkam sëriñ Abdulatif Jenn di leen wax ne itam nag guddi keroog itam la ma yonent bi itam nag tafsiral alxuraanul karim li ko dareel nag bàqara ba ci suuratul hajji ci suba ga itam nag bi ma tëddaatee la yonent bi itam nag ñëwaata tàmbali waat man nag suuratul hajji ba ci suuratul naasi bisub keroog itam nag la Seex Isaa wax sëriñ Basiiru Jenn nag ak sëriñ Abdulatif Jenn lii nag nettaliwaat doomu aadama kon moom nag ku yéemee yéemee yéeme la nag ci laataa muy jaayanteeg sëriñ Tuuba Cheikhul Xadim mu nekkin nag ku tabee tabee tabee tabe moom Cheikh Issa Diène mbooleem waykat yi nga xam ne nii nag way nañ ko kenn ku ne daal ñeme teraanga ak Cheikh Issa jenn nag bind nga ko ak bëggoon gu mu bëggoon doomu aadama ak ay may nag yu ko Cheikhul Xadim may nag moom doomu sëriñ Mor Birane Diène bi mu nekkin nag ku am kóllëre képp kuy mbokkam nag bu la tuddewul na mbooloo sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñépp nag la daan nemmeeku nag ngir sëriñ Touba Seexul Xaddiim mu nekkoon nag ku bëgg boppam ku xamoon nag may yi ko sëriñ Touba Seexul Xaddiim may ba na nag loolu itam nag feeñ na lool nag ci ak njabootam tudde na nag lu ëpp juróom benn yoon doom Seexul Xaddiim tudde na nag lu ëpp ñett yoon doom itam nag soxna jaaratullaahi soo delloo nag ci way yi sëriñ Moor Jooja Faal nag defal Cheikh Issa jenn fukki way ak ñaar nag la xasida gi nag tollool sëriñ Moor Jooja nag mag wax jikko yu rafet nag ak nag yu yenn nag làmboo woon jikko yooyu nag noonu mu rafetee nag noonu mu kawee kenn nag munu leen a suul wala kenn nag munu koo suul muy doole nag ju yàgg nag ci moom te doole jooju nag doyuwu ko dara nag lu dul sàkk baax nag ak liggéeyal ci nag suñu boroom muy jëmm nag ju tabe jëmm nag ju taaru waaye jëmm nag ju am xorom nag ku jàkkaarloog jëmm ji nag sa xol békk da nga gis itim nag kanam nag gu bëgg sëriñ bi kanam nag gu nangoo jaamu nag suñu borooma kanamuk boroom ngërëmul yàlla mu nekk nag ku am njariñ ci képp nag ku ko féete nag ak mag képp itim nag ku ko féete diggante nag ak ndawitim muy jëm nag joo xam ni nag ñëpp xam nañ ko nag ci mën a ganale ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam nag daana ko jox nag gani boppam Seex Isaa nag nekkul woon na ko gan nag di bett ay ndabam itam nag dadaa fees dell nag ak i xéewal ay àdd yéem itam nag dadaa rombante ku daa maye la waaye ku daa rendi itam nag ay gàtt la la ngir doomu aadama yi boroomu njëriñ nag la woon ku sori woon itam nag ay lor nag la woon ku ñeme woon itam nag ak la ñu teewlu nag way yu ko sëriñ Moor Jooja Faal nag defal fa la udni hamlati ila markazi l ahbaari max kulli buqyati ay xeesa jenn mën naa la rutbatan yafooxu bi dooni nukri min kulli rutbati xawiyun bi filil xayri saabiqu gaayatin nadimun li ahlillahi min kulli hadrati bahiijun yuniirul wajha minhu xayaahuban yaluuhu sanaaya cheikhu an misli turrati jawaadun yajuudu dahra bil xayri waahiban bi durrin wa yanquutin lada kulli fiati sarriyun jasuurun aylamun faylamun lahu fuyoodaat maa'ul xaybi rayaanu xudwati lahu olan wa fiyun zimaamul kulli min duuni kulfati bahru ilmun lam jasal saahibi yulaafisu yaquuta daqaa'iqi buxyati wa huubun wa mushki shikaayatin wa taatihi ahlullaahi fi kulli sohbati wala haatimun ka cheikh hinsa bi juudihi wa laysa kahu bil ilmi ahnafu millati la quddaamu xutbil asri muskaana shaaduna ya jummu kullil xayri naafil mashaqati wa inni limati cheikh hinsa la mutanibun bi maa dumtu fa yaa amdaahu nat bi rutbati jàmbaari sëriñ Tuubaa Seexul Xadim gii ñuy wax nag cheikh Ibrahima Diop almashari yu ku wayitim nag cheikh Isaa jenn la ci melokaan melokaanam ak jikkoom ak ngërëm li nga xam ne nag am na ko nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima soo delloo nag ci way yi nga xam ne nii nag Cheikh Ibrahima Diop almashari yu nag def na ko nag ci Cheikh Issa jenn mi ngi ñuy xamal nag ci way yi ne seex Issa Diène nag làq na nag mbooleem ndam yi lépp li ñuy tagge góor itam nag Cheikh Issa am na lu mu ci jëfitam nag ba am ca ndam moo xam muy bëgg lu baax gi moo xam muy waxtaane lu baax li moo xam muy liggéeyal ku baax lépp daal Cheikh Issa def na ko ba làq ci nag ay may ku dong nag moo ko ko may sooy limitim nag ñu njëkk a jébbalu itam nag ci sëriñ bi doo ko ci boole sooy limitim nag mbokki sëriñ bi itam nag doo ko ci boole boo dee lim jàmbaari nag foo tuddee ñaar nag boole ko ca moo soppoon sëriñ bi lool moo takk itam nag lampi ngëneel moom seex Issa nag leeral na nag tund yu bari toj na itam nag fu baree bare bare bari defar na itam nag ñu baree baree bare bari amoon nay teggin amoon na xel mu rafet amoon na itam nag ak ñaw na lool tabe na lool tabeem nag plat fees ya ci ceeb ci ndawal ci mburu ak nag ci bonbon mu ne lii lépp itam nag Cheikh Issa daana ko def na ngir doomu aadama yi ñu teewlu nag way yi ko Cheikh Ibrahima Diop almasari yu nag defal haza almafaxira isa jannasul karami wa faaza bilxurbi wa ridwani bilxidami hibbul xadimi wa misbaahu tariqatihi bihi sanaarat liman yamshi bila sulami fatan adibun aribun yaqisun barun karimun jawaadun muxjilu diyami rabu jifaani lati daaban qadim talaat bil urzi wal laxmi wal axbaari wal dasami wa bi taami an haakal muftaxirun bi zabhi li day tayfi min urabin wa min ajami ama hadayaahu la tuxsa ala ahadin bi nutqi bilfammi aw bilxalami waziru cheikhin ala ragmi alxasuudi fa kam ahtaahuma faaxa min baadin wa muktatimi maa lii li misra wala maa fiiha hawa arabun lakin bi taggaara anju badra tammahami xaysum nu mariama isa jen sataat anwaaruhu faxtada bilfadli kulla ami wa naala ma naala min asrarin asrari tarbiyatin xata xada bayna ahli sabqi kalalami ataalama hiyaahu mawlaana wa zaada bihi alislaama izzan bila husnin wala alami bi haqi ustaasi sil mifdaali ahmadu man huwa alxadiimu bi ma ahya quwaal qidami alayhi ridwaanu rabbin daiman abadan maa jaada bi suuli wal maamuuni zul karim ko amoon nag ak jaxasoo la ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag moom seex isa Diène bi Seexul Xadim nag jógee ci géej gi Cheikh isa nag la njëkk a yónni ngir mu wool ko maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru waajuru Cheikh Issa ak waajuru maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñoo bokk itam nag fuñ tëdd Xaddim moo leen fa woo itam nag moo leen fa denc Cheikh Issa Dienne itam nag tudde na maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru doom Serigne Mbacke Dienne nag mi ngi fi woon bi maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru nag génnee àdduna ci atum 1943 Cheikh Issa Dienne nag moo sàkku itam nag ci njabootu maam Thierno ñu denc maam Thierno itam nag bayti bi maam Thierno itam nekkee nag ci wéradi gi Cheikh Issa itam nag fa la nekk ba ni maam Thierno nag génnee àdduna jaxasoogu yaatoo yaatoo yaatu nag ñaari jëmm yooyu nag kazaalika sëriñ Balla Coro itam nag ku jaxasoo woon ak Cheikh Issa Diène la bi Seexul Xaddim nag defee sëriñ Balla Coro chef de village yu Njaaréem Cheikh Issa itam nag la defoon itam mu dox itam nag relation mag ñi ngir réeroo nag bañ a am nag ci seen biir bi fi Seexul Xaddim nag bàyyi ko Cheikh Issa Diène itam nag moo sàkku itam nag ci sëriñ Balla Coro mu ñëw nag ci suuf soosu nag di mbar mu jox ko fa nag suuf su yaatoo yaatu sàkku itam nag ci ak njabootam itam nag ñu goral mbar Mbàkke nag sëriñ Balla Coro Mbàkke ku jaxasoo nag tudde na Cheikh Issa Diène doom sëriñ Diène Diaw nag mi ngi fii te Cheikh Issa lañ ko tudde soo delloo nag ci juróomi way yi sëriñ ma Yaasin Oumy Dieng nag jagleel seex Issa Diène mag ñuy wax nag melokaanu Cheikh Issa Diène ma ngay wax ne yow mi war nag ak giléem jëm nag lagaan soo demee nag nag ma nuyul nag seex Issa nee nag maa ngi koy nuyu nag junnib nuyoo yàlla na ko yàlla tàggaleek nag lépp nag lu koy lor yàlla nay dajeeg nag lu koy bégloo tey seddub xolom naka ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nag ñiy sàkku ndimbal ñiy yalwaan gan ñi ak gani sëriñ bi Cheikh Issa itim sangam yëpp itim nag moom moo leen kawee ci judd bu rafet ak jikko nag ju rafet ku rafet nag ay jikko la ay jikkoom nag ñëpp nag gërëm nañ ko nii mu mel nag ba ñun waa suuf nag ñu man koo seedee waa kaw itim nag noonu la ñu mën a seedee nag lii ñu seede nag ci seex Issa ñu teewlu nag juróomi way nag yu ko sëriñ ma yaasin ummi jang nag defal moom jàmbaari sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ji di Cheikh Issa والذي هرول الوفد الزمان له وفاق أقرانه وزنا وتكنيسا قد كان في ناس محمودا سجيته وفي سماهة معروفا ومانوسا كأنه في الورى شمس الضحى علنا حتى يرى أنه قد سارنا موسى من زاره يلقى ما يهواه من كرم كقاصد صائرا نمرا سنا موسى mu nekk na ku yéeme moom doomu sëriñ Mor Birane Diène bi tabaski googu nag mu mujjee fekkee muy tabaski 1948 biñ ko tabaskee nag ba noppi la yónni nag kenn nag ci ay taalibeem di sëriñ Mor Diène nag bu daaru daaru paam di ko xamal ne tundu kajoor woowu dëkk boobu nag di càccuur dëkk la nag bu ma yéem damaa bëggoon nag nga dem fa soo fa eggee nag bul fanaan nag ci genn kër bu fa dugg itam nag ci genn kër taxawal nag ca pénc ma nag fanaane faa tudd baatub suñ borom bi nag ba asamaan set lépp luñ la fa jox nag bu ko lekk itam def ko nag ñaari cër benn cër ba nag magum sëriñ Tuubaa nag mi gën a jege foofu nag nga jox ko ko beneen cër ba nag nga fob ko nag indil ma sëriñ moor jenn daaru paam nag Issa Diène nag joxoon am na nag mag moo xam ne nii nag fekkoon na ko fa nag ndax wëlle réew sëriñ Mor Diène nag la woon di sëriñ moor Fijoor mi ngi doon xamal nag sëriñ moor Diène maag yow nag ni ñu séqe ak kóllëre lan moo tax nag nga ñëw nag ci dëkk bi te ñëwoon nag sama kër sëriñ moor Diène nag di ko xamal ne daal ndigal nag moo ma fi taxoon a ñëw te ndigal lii itam nag lii la ma waxa bi mu fanaanee sikar nag ci dëkk boobu nag di ca ba asamaan set nag lañ ko fa jox nag la def nag ñaari xaaca jenn nag ci njenne lagan guddi googu nag mu fanaane woon a sikkar nag ci dëkk boobu nag di cacuur moo dëppoog nag fukki fan ak ñaar nag ci weeru tabaski bés boobu itam nag bënn nëg ne ñu ngi koy màggal nag ci dëkk boobu addi yooyu mu joxoon Cheikh Issa jenn wax nañ ne itam nag bi Cheikh Issa Diène nag génnee àdduna addiye yooyu nag ci kawam lañ ko fekk Cheikh Issa Diène nag mi ngi génn àdduna talaata fukki fan ak juróom nag ci weeru tabaski ci atum 1367 nag ci gàddaay gi talaata fukki fan ak juróom nag weeru tabaski ci atum 1947 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mardi 19 octobre 1948 mardi 19 octobre 1948 ci suuf soosu mu goroon nag féete fa di njenne lagan nekk nag ci arrondissement nag bu kolobaan bokkit nag ci département bu gosaas ci région nag bu Fatick ñu yëgal ko nag ki fi nekkaloon ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke itam nag moo woo rakkam Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di ko wax ne daal taal na ndem njenn lagan seen taalibe waajur ba nag Cheikh Issa Diène moo fi bàyyi ko su demee nag mu waajal ko indil ko ko nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba Cheikh Mamadou Bachir nag moo dem njenn lagan jëli Cheikh Issa Diène waajale ko nag njenn lagan indil ko nag Cheikh Mamadou Fadal nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag moo ko jullee jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi soo delloo nag ci way yii ko sëriñ Moor Kayre nag way bokkoon nag ci jàmbaari sëriñ Touba Seexul Xadiimi nekkoon itam nag bindkat nag yu nag ci yoonu murit wi defaloon na nag ay way nag Cheikh Issa Diène way nag ci kàllaamay arab nag la ko defee muy arab nag la koy tàmbalee daaneele ko nag wolof sëriñ Mor Kayre nag mag ñuy xamal njàmbaarug nak seex Issa jenn nag ci biir way ya sëriñ Mor Kayre daal lépp loo xam nii daal melokaanu Cheikh Issa jenn la wala mu nekk nag grade nag gu ko ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddim takkal wala lu mu jëlee nag ci mag ñi njàmbaarte daal gu mu wane woon nag ci yoonu murit wi loolu daal lañu sëriñ Mor Kayre nag tënkal nag ci ay way way jagleel ko nag Cheikh Issa Diène way yi nag mu tàmbalee ko nag ci arab di daaneele way wi nag ci wolof ñu teewlu nag li ci sëriñ Mor Kayra nag def jagleel ko nag Cheikh Issa Diène laa fàlla fuuka wala maa fiika yow mi amee buur yàlla yàlla na la xaar xaaraale loo fi amee yaa man mu koosu ko fii naa soo fa yan fa unaa yow yaay yow jiite fii yow mii la bamba nome wa man taamal yaalam anna malja inaa jiital na xeesa ba moo tax ab dëkkam dana me yaa man yamiilu lahu sukkaanu bu xatinaa yaa leen di jiite nda yow baax rek lan la xame tasrifuhum doo leen dëxal kaso yow say wax melul ni xeme lam tux fa anhum xuyóoran bal tubashiruha doo leen jëme waxay sa yiw wi daal nga leen di jëme xat xusta xun man wa xilman xusta maarifatan yow am nga xam nga doo koy puukaree ka jame wallahi xat madaxal axraanu chimatukum te sopp rekk taxul ñu way la yaani demee laakin mardaatuhumu mardaatu cheikhihimu seex nag ku am ngërëmam moo fu layam deeti damme xadimunaa cheikhu xeesa sunnatun xasunat yoneen lansaar la sàkkoon la ñuy sukkume yaa rabbi salli ala teg ci Bamba mu jox Insa ab dëkkam mu amee ay xalifaam nag nii la tëdde moom seex Issa Diène li ko dalee nag ci atum 1948 ba ci atum 1986 taawam ba nag Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jenn moo ko wuutu nekk nag xalifaam nag bu njëkk ñaareelu xalifa Cheikh Issa jenn mooy Serigne Abdou Latif jenn moo fi toog nag ci atum 1986 nag ba nëga ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu nag ak mboolem ñu mu séqal Cheikh Issa Diène nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci luñ tuddee ak màggal bis bii mu génnoon àdduna di juróomi fan nag ci weeru tabaski kam faye woon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu ko daa wooye nag sëriñ Mbàkke jenn daana ko ci nag fàttaliku màggal googu nag bënn ba nëgëni mi ngi am njabootam gim fi bàyyi nag ñu ngi koy wéyal ci juróomi fan nag ci weeru tabaski am na yeneen bis nag yu ñuy fàttalikuwaale nag Cheikh Issa Diène mooy lu mel ne Korité ngeen ne Lagan njaboot gépp nag foofu la ñuy koree ñaanalaale nag seen waajur wi ak liñ njaboot gi itam nag danañ fa maase ñoom ñëpp itam nag dajee fa nag gàmmoo fa fàttaliku waale nag seen waajur wa daayira Cheikh Issa Diène nag bi nekk Italie am na bisum màggal itam nag buñ jagleel Cheikh Issa Diène nag ko jekkoo nag lañ koy màggal ci ndigalul xalifa Cheikh Issa bi si nekk di sëriñ Abdou Latif Diène yeneen bis nag yi ñu jagleel seex Issa Diène mooy lu mel ne ay journée culturel nag yuñ ko jagleel ci mbooleem réew mi nag ñuy ñaan nag ca jàmbaari sëriñ Touba Cheikhul Khadim ja borom njenne ak lagan yàlla nañu nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem li di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey alxuraanul karim amin